léegi baykat bi dama naan leen mu jëlee ku mel ni dëkk bu mel ni Mbirkilaan wala dem ba Sédhiou Sédhiou département de Sédhiou wala Tamba daanaka fa recruter képp kuy baykat def leen ci ay coopérative nga ne damaa soxla nangam si dugub ñii mel ne damaa soxla nangam ci mboq ñi mel ne damaa soxla nangam ci ceeb léegi lii dama leen koy subsidise daan leen jox machine yi daan leen jox forage bi daan leen jox ndox mi bayal leen ma lii. pour fond xale yi li war a dundee la xaalis baa ngi nii subsidise naa la ba mu doy du ma leen joxe ñuy bay jox ay deux cent cinquante francs non dama lay bay lu ñuy fay américains yi xaalis bi nga nekk un homme riche yow boo bayee pare jën nañ ko ba pare da nga bay li ngay bayee tegal nañ ko ba pare léegi yow ba ma ko bayee qu'est-ce que je fais ma ma créé beneen unité de transformation jigéen ñi jàmbaar yi nga xam ne dama def man unité de transformation ci réew mi testé ko li ma lay wax daanu moo ci garab di ko expliqué candidat yu bëri fi li ñu lay wax mhm. lii dama ko testé ci réew mi 9 ans digg mbir ki laan laa dem def fa unité de transformation mooy jigéen ñi nga gis président Macky Sall jàppale woon ñu financé woon ma y'a quelques mois léegi jigéen jàmbaar yooyu ñu ngi transformé ñu transformé fondé bi transformer dugub ji transformer mboq mi et cetera qu'est-ce que ça va faire mu ngi créer emploi pour ñu nekk ci bay mi ñu ngi commencé bay transformation jigéen ñi ñi ngi am emploi ma defaat beneen industrie mooy lan mooy catering ñuy togg ak ñu koy packaging ñooñu jigéen ñun xale yi doo dugg ci néegi see ñu nekk ci koñ bi célibataire yi defu dara nga yóbbu leen ñu jàngi jàngal leen trois mois nu ñuy toggee di ko def packaging packaging boobu mu ngi ko def delivery nga amaat transporteur yi ñu koy yóbbu xale yi chaque jour ñu koy lekk dafa am lu mu bëgg dindi au de d' abord moom laa la yuq bi bu amut yuq boobu boo ko defut ku fi ñëw teg dara du dem lan nga bëgg a dindi waaw li ñu gëm loolu ne tubaab yi ñoo ñu gën Senghor li mu ñu gëm ne woon ne ñun dañoo war a mel ni français suñu lekk lu ñuy jàng làkk duñu lekk lekk français yi français la ñuy ñu duñu lekk suñu lekk mag ñi moo indi feebar bi am yëpp léegi lu ñuy sol ñun ñëpp bu tubaab bi ñoo koy defar fi ñuy tëdd tubaab yi ñoo koy defar suñu mbedd yi ñoo koy defar seen làkk la làkk ban ñun tubaab yi nekk fii yow bi ngay wax fi sànq presque français nga doon wax ñun ñëpp France lañ bu ñu il faut ñu intelligent wax français suñu suñuy leader loolu dama ko bëgg a dindi ndànk par ndànk